allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa bashirhu bima rahabtu bihi mawlidahu sallallahu taala alayhi wa sallam rabihu al awal rahabtu taadiman bi shahri almuntaqa عليه تسليما منيل الارتقاء بشرت يا ربيع كل ذي التقى yaa darfa nuurin wa istifaain wa intiqa yaa man xabaana billadi lam yuxlaqa nadiruhu wa abadan lan yuxlaqa عليك أحمد الذي قد أطلق كلي لوجهه ولست مملقا إلى سواي مال كل سيسقا في أبد بك ولا أنحس شقا ليجت بالذي اعتلى وسبق الأنبياء والرسل عند ذي البقاء إلي قدت من جمادا أنطق بصدقه معجسة فنطقا وصلت يا ربيه لي ما فرقا بيني وبين ملحد قد مرقا وصلت لي ما لا يزال عبقا ilal jinaani wa aduwi abaqa laka aqulu marxaban lil muntaqa yaa man xabaa bihi wa alayta artiqa laka aqulu marxaban lil muntaqa yaa man xabaa bihi wa alayta artiqa laka aqulu marxaban lil muntaqa yaa man xabaa bihi wa alayta artiqa subxaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun salaamun ala al mursalin walhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyoo tey ziyaara tey ndokkeel ci weeru tedd wi di weeru sang bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam di yaakaare sunu yaakaar di sëriñub sunub sëriñ waaye weer wi di weeru sëriñ Tuubaa ku ko xam-xam ko gàmmu axyeytu mawlida nabi min asasi waaye waxaada lii nag fawxal munaa fii talsasi kon mu yàgg dundal gàmm lool dundale ko fu ne dundale ko cig wettiliku dundal ko it cig wet dundal ko ci njëlbeenug Touba ak mbakke Kajoor ak Mbacke ak Darou Salaam waaye dundal ko ci géej gi nga xam ne kenn ku gëm yàlla du ko jege moom rek moo fa ne di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dundal ko ci mu jëm ci njaareem daa ko woote woote bu xumb boo xam ne moom rek lañ ma ca sa gis ci lu mu woote ñëpp di ko wuy si mu di leen teralal boppam ci loxol boppam ba di joxe ay ñam di tàngal ataaya ak café di ko joxe dafa sikki ak misk di ko xëpp nit ñi kenn du ko ca doy ku loxol boppam ñam ya ak naan yi yëpp moo koy joxel boppam moo tax nga dégg muy junj ci jasbul xulóob ne fa man taha man xayya a liman lahu qad qaraa mubajjilan fa xaba a xayraati ahli lhimami wa man ala cheyin qara mawlida sayidil wara tabarrukan fa sa yara numuwuhu bil fatqami loolu moo tax bi nga gannaaw bi mu ko diglee ñëpp it kenn di ko caa jiituwut moo daa defal boppam lépp màggal gi noo ko tax a jóg ndax da cee sant yàlla digal nu nu di ko ci santale yàlla waaye gàmmu gi moom mbirum boppam la ko defoon moo xam ne moo koy defal boppam tey woo ñëpp ñu di ko fekk si daa ko fa def moom rek la daa woote ci bis bu ko jaral woo ñëpp ñu bàyyi lépp fekk si ko mu ber góor ñee ne ber jigéen ñee ne le ñuy jàng gës bu mu waaye muqaddima teg ci barsan ba bët set loolu moo ko sose woon noonu daa ko defe noonu ci mujj gi nag boole na ci limaahin basirin kon nag dama waxoon ay kàddu démb di soññee ci nun bokki taalibe bi yëpp nu gën a farlu ci addiyaal yonent bi ci ay salawaat mu mel ne waa Lamp Fall biñ ci jotee dañoo sàkk ma gën leen a leeralal njëriñu salaatu ala nabi ma gën cee xóot ci waxtaan bi ma nangul leen ko ngir xam ne rajo murid yi la te luñ ca def murid yëpp dañ ci jot sama bokki taalibe yi nga xam ne maa ngi ñoo ma tolloo mbaa sax ma ne ci seenu ron sañ na diisoog ñoom wala ma xelal leen wala ma laabiri leen ñooñu rek laay sañ wax ne nanu góorgóorlu bu baax ci gàmm gi te xam ne mooy weeru sëriñ bi ndax bu masaa egsi li muy tabe tabe tab ga day yokk ba ñëpp xam ko ci moom li muy bari bari jàmm jëmil ji day yokk ba ñëpp xam ko ci moom lu waaye de sàkku sax danga naan naa nekk ba gàmm gi dugg ndax ci day gën a yombe day ubbi bunt yépp yomb ñëpp belli lool yaatu lool di ree ba ñëpp xam ne weer wi dugg na muutaloon ko ay teeni boppam ay yéere boppam ay bagages boppam ay xasiday boppam kon nag ko xam fa fa mu toll sëriñ bi te yaakaaroo lu sëriñ bi war nga ko cee jàppale ci màggale ko guddi gi waaye doo nekk ba ca bis ba hmm. ndax gankat ku ko fonk da nga koy gàttandu te buy dem nga gunge ko gis ngeen ak Cheikh Ibrahima Fati moom da ko bañ ba mawlid guddi altine gu ne da koy da koy dundal ngir dégg sëñ bi ak xam ko euh, ma bëggoon nag nun ñi nga xam ne ay ay dong rek lañ tax sañ nañoo labirindi suñ biir nu góorgóorlu ba bis bii ci jëkk ba weer wii dee sax laay wax waaye bis bii ci jëkk ñu gàttandu ko li ñu koy gàttandoo mooy salaatu salaatu ala nabi yëpp a baax salaatu goo gis dafa am ku ko tëgg ku ko defar boo ko waxee ka ko def da ci am tuyaabu nga am ci tuyaabu ndegam loolu dafa am nag ma jàpp ne yi sëñ bi defal boppam nun ci lañ war a gën a góor góorlu ndax lépp dellu ci sëriñ bi dama jàpp ne ndegam yonent bi sallallahu alayhi moo soxla ñu ñu ñuy julli ci moom te loolu mooy ñaan kon dafa mel ne lu baax kenn du ko doyle loo ko bari le bari le kon ndegam dañuy julli ci yonent bi di ñaan sëriñ bi yàlla yokk ay leeram te taas na ci barkeem kon jël ay salawaatam di ko jëfandikoo moog addi yi ñu koy jox mu ne nu ko nangul ñooyam la naroon dem feneen day dellu ci sëriñ bi. kon nag nu gën a góorgóorlu ci xaside yi nga xam ne benn day nettali siira mooy jaar-jaar yonent bi ñu mën cee jariño lu mel ne Ahmad Suleyman lu mel ne Mimiya lu mel ne Raiya yooyu képp ku yàlla may nga mën koo firi di ko firil ña nga dendal di leen leeral jaar-jaar salaam salaam ndax ñu mën cee roy lu am njariñ la ci weer bi ñi ko mënut it ñu xam ne julli ci yonent bi ci xaside yi sëriñ bi yi nga xam ne ay salawaat rek la lu ci waaye mën a gën a baril ci njëlbeenu weer wi ba ci guddi gi ba ci weer wi jeex nga yokk ko yooyu nag bari naa ndax sëriñ bi da ko xaaj dafa xaaj liggéey bi juróom benn weer yi nee na day julli ci moom juróom benn weer yi da koy tagg mooy salaatu sitta bi matxi sitta tatihi batta ma atisaay kon lu mel ne jaalibatul maraaxib lu mel ne Mafatihul Bichri lu mel ne Nooru Daarayni lu mel ne Ahmadou Moniyan lu mel ne yaa Sayyidi yaa Moustapha yaa Sanada lu mel ne Bidaayatul Xidma ak Muqaddamatul Xidma tey Siirul Ansir yooyu yëpp nga xam ne ay salawaat képp la ba jeex mu jullee ci salaam salaam julliin woo xam ne mësuñoo dégg ko ku jullee ci yonent bi julli mat ràbbee ko ràbbin woo xam ne ñëpp lot nañ ci. ca rafetaay ba ak neexaay ba ak yaatu ga boo demee ci nooru daar yi da gis mu julli ci moom noo xam ne yéeme na masalan lu mel ne yàllaahu yaa rahmaanu yaa rahimu yaa maliku yaa quddus yaa mukrim yaa woo na yàlla ci turum yu gën màgg yi ba yàlla geesu ko mu joxoñ ko nag tagg ko tagg woo xam ne laka sana walhamdu wa shukru maa alhamdu wa shukru wa sanaaw sant ak gërëm ak tagg yooyu la boole jox borom ba boromum bég mu ne ko nag salli salaatan tamla u samaa wal arda yaa man qaada li namaa maa salaamin yartaqi lil arshi wa yamlau l kursiya yaa zal farshi waaye nag yooyu yëpp nag salaatu yeeg salaam yëpp nag boole ko wayut xilaanil bishra fi qalbi nabi boole leen defal ma ko ci xolub yonent bi yonent bi nga xam ne mooy mbégum sóorat kulli ak xarbin lu aññim ku ko jegee ku ko sori ci bokk ala nabiyil muntaqa muhammadi wa alihi wa sahbihi sëñ ni muy ràbbe ay waxam ak làmmiñu arab ak balaaxa beeg bayaan beeg enroot yàlla daf ko ci dencal loo xam ne ci moom la tàmbalee ci moom la yem moo tax waxam jenn wax melu ni kon nag xaside yëpp baax nañ waaye yiñ ci war a gën a tànn mooy yi nga xam ne ay salawaat da cee bari ba keroog gàmm gi jeex nga gën a bari yooyu jàng ci yooyu salaatu al nabi nag ci ay njariñam euh, sama kalaas gi gépp dama jàpp ne bu ma dox dama naan mu leen ndax dafa yomb jubal ndax bu dee alquran sun borom dane la laa yamassuhu illa almutahharun sañoo laal kaamil bi te jàppoo bu dee turu yàlla wird woo mën a wird bokk na ci charte yi da ngay jàpp ba sel toog ci barab jublu xibla am na ñoo xam ne sax dañ ciy boole laaj laal laaj ko lañ bañ a wax door dem ci wird ba salaatu alnabi nag li tax mu yomb juboon néew ma la bul jàpp jàpp ci gën waaye boo amoon ba ngaant tiimal boo mënta tiim sax yoroom jàpp tiimoo teewul boo ko defee ñu nangu ko ndax daraje ki nga koy defal la tax boo newoon ci biir wanag sax di ko def ñu nangu ko boo ko doon def di ñissal sax duñu la gàntul yow dañ ko nangu boo ko defoon doo ko teewlu mel na kuy kaf di ko waxantu sax ñu jël ko yóbbu dañ ko nangu saatu annabi jenn goo ci def ay malaayka dañ koy fab jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa mu tëdd ci Madina ne ko diw doomi diw ak diw moo julli ci julli gii bu ko defee ka defoon julli gi da cee jariñu yow it yonent bi fay la nga jariñu ci bu dee benn nga ko def yonent bi fay la fukk bu dee fukk mu fay la téeméer bu dee téeméer mu fay la junne bu dee junne yoon nga ko def mu fay la fukki junne noonu lay toppee di di gën a bari di gën a bari te loolu sax borom xam-xam yi xóotal nañ ko boo wax ne ki ko def te teewluwu ko sax bàyyiwu ko xel dëgg-dëgg seetlu teewluwu ko da koo def nii rek kooku la wax ne dañ ko fay loolu waaye ki ko teewlu jox ko ak dëgg jàpp teewlu yi am yëg-yëg. nee na kooku moom yàlla rek xam lim ko ciy fay waaye ëpp na loolu lépp kon sëriñ bi kenn mënu ko fay ndax xaside yi li ci ëpp moom la ko ràbbe dangay julli sax ci yonent bi ci xaside yi mu ràbbe ko ay ak ak ak julli ci yonent bi te doo yëg sax na yaa ngi koy def kon murid bi day jàng xaside ba defaru te du yëg na defaru na sax bay gis boppam kon sëriñ bi yàlla na ko yàlla fayal ñu gën a góorgóorlu ci salawaat yi euh, ma jukki ci rek yenn yu gàtt yu am njariñ yu yomb wax bi ci gën a yomb nga xam ne ki ne ci bureau mën na koy wax kana ca tool ba mën na koy wax kana ci atelier ba mën na koy wax ki tëdd ci laalam sax mën na koy wax te du ko yàqal dara bu ko neexee sax mën naa bañ a kurus mooy sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad dafa gàtt yomb mokkal waaye bari nga ne lool bokk na ci liñ ci mën a wax mooy day ubbi ay wërsëg day ndal ay wërsëg sallallahu ala muhammad jooju nag ku ko mënoon rek lu mu gàtt gàtt boo ko mënee di def bis set fukki junne ñaar sax ba weer wi jeex nga di ko def boo ko mënul xanaa lu mu néew néew junne benn benn junne rek mille fois loolu vingt minutes sax du ko ëpp bis set nga def ko rek bu dee ab taalibe na gëm ne day liggéeyal sëñ Tuubaa ci yonent bi def ko jox ko yeneenti bi sallallahu alayhi wasallam addiya ngir sàkku ci ngërëmul sëriñ bi yomb na sallallahu ala muhammad def def ko junne yoon jox ko yénte bi san sama addiya bu dee koo xam ne ak jotam may na ko ko mën naa jël yi ci des gën nañoo guddanti waaye yëpp a baax salaatul fatih allahuma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima uliq wal xaatimi lima sabaq nasiril xaq bil xaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadri wa miqdaari alazim gis nga sëriñ bi dugal ko ci muqaddimaat ak mawaahibu ak yu bari ci xasida yi ak sax si wurdul maaquus am na ci bu sëñ bi fonkoon la moom it téeméer wala ñetti téeméer fukk ak ñett wala junne loo ci man salaatul ummi yi noonu allahuma salli ala muhammadin wala allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin annabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman googu itam kooku man lim boo man baax na waaye maa ngi ci laa biire taalib lim bu baax boo xam ne moom la wax sirul kaw ni lim bu am solo la mooy cinq mille juróom benn junni yu manqué juróomi ber juróomi junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom mille neuf cent quatre vingt ci salaatul ummi yi mooy allahuma salli ala sayyidina mawlana muhammad annabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim nga def ko lim boobu wala nga def ko junne yoon kem kàttan am na beneen si it allahuma salli ala abdika wa rasulika wa nabiyika annabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa ko noonu bokk na ci sëriñ bi daa faral di santaane bisu ajuma sax gannaaw takkusaan neewaa na ci njeereem fu mu sëlmalee te digliwul ñu def ko juróom-ñett fukki yoon muy googu salaatul ummi googu ñoo xam ne ku ko def fa nga toog bala ngaa jóg ñu jégg la sa bàkkaar yi juróom-ñett fukki at bind la jaamu yàlla guñ nangu gu juróom-ñett fukki at mooy allahuma salli ala sayyidina walana muhammadin annabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman la yoo xam ne gu neex yonent bi la googu bu ko defee nag euh, lu mel ne allahuma salli ala sayyidina walana muhammad annabiyil ummiyil habibil aali al qadri al azim al jaahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman googu ummi yi da cee dugg tam amaat lu ummi yi amut moom moom moom moo boo ko doon misaal dama ne mooy VIP bi <laughs> mooy bi ci ëpp solo nag moom dañuy wax ne sax ku koy faral di wax rawatina guddi àjjuma donte benn yoon la ci guddi àjjuma bis boo génnee àddina ba di la dugg sa bàmmeel sallallahu alayhi wa sallam ci moo lay nangu ci biir bàmmeel kon génn ëpp ko ngëneel moom daal li am solo mooy nun ñi nga xam ne euh, bëgg nañoo dabaatal sunu dund fecciliku ci aw yiw nañ góorgóorlu salaatu ala nabi koo xam ne mënoo sell bu baax a baax taxool ak salaatu ala nabi dana la defar sellal la koo xam ne bari ngay bàkkaar taxool ak salaatu ala koo xam ne danga ngaa bëgg wërsëg taxool ak salaatu ala nabi ku bëgg a jege yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxool ak salaatu ala ku bëgg a bokk ci gaay yi sëriñ bi dëgg-dëgg taxool ak salaatu ala bi salaatu yaa ngoog gu ci waaye tànn rek baax na waaye nag nañ koy dàkk ci xasidi sëriñ bi ndax ay salaatu kese la te lu sëñ bi def moo nu gënal lu mu deful lu ne kon nag xasida yaa ngoog gàmmu gaa ngoog kullu aamin wa antum bi xayr